jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel improtive yi mbokki ah, yi Seydina Ousmane moom la ñu seet si muy jàmbaar di borom xam-xam di ko xamante ni yaakaar naa li ko yàlla may ci baatin Sénégal yëpp xam ngeen ko. ñu bëreen ko doon laajte mais dafa nekkoon ci tournée dem na fa nga xamante ni mooy Maroc jóge fa dem na Qatar nee na ma nag la ma gis ci suufu Qatar am na ci loo xamante ni faaw ma leeral ko loolu lépp danañ ci dugg ànd ci ay leeral mbokk yi danañ waxtaan ci la nga xamante ni moom mooy voyage bi Arabie Saoudite tamit sëriñ bi euh, dem na fa tey danañ xuus ci lu bëree bëree bëree bëree bëri nee na ma am na koo xamante ni mu ngi fi maa ngi fi waaye mu ngi ci ay jafe-jafe yu tar laata loolu dañuy bàyyi sëriñ bi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëñ Ousmane Niass ñoo ngi lay jaare ginnaaw ba nga jógee ca voyage bi aouzu billahi min li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi nduyu waa biir réew nduyu àdduna nduyu waa Sénégal rawatina réew yu fasantikoo ya nga xam ne jugee nañ fa ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaaral ñëpp jàmm waaye alaaji dégg waaw dafa am loo xam ne tey dama ko bëgg a wax balaa ñoo dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan wi dafa am ay groupe yoo xam ne dama leen a war a gërëm fii. duñ ko mujjee. lu parce que lu tax duñ ko mujjee gis nga lépp loo gis rekk mhm. ndit bu la defalee teraanga. Mhm. delloo ko njukkal dafa war dégg daaj. Mhm. moo tax groupe yooyu dinañ leen cité tey fii bëgguñu woon leen a sax. waaye dañuy dégg ay wax. képp ku mës wax ci ñun nag baal nañ la. dafa am ñuy wax ci man képp kuy wax ci man léegi man Serigne usmaan wóor na Cheikhu Tidiane Chérif bal naa la ak chehru Ramadan gi ni ñu nekk. Mhm. groupe ba ca Amérique. soppee Serigne Ousmane maa koy maa ngi leen di nuyu. Mhm. njiit ga di soxna Zeynabu nduyu naa ko bu wér mu jël ndiwooyu jàllale ko ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. ca Angleterre maa ngi nuyu. Mhm. ajratu ndu Jang ca Angleterre nduy naa ko sant ko gërëm ko di nduy ka nga xam ne moo nekk ca États-Unis maa ngi koy nduy muy Modou Fall Modou Fall nduy naa ko bu baax group yooyu noonu nga xam ne ñooy group soppee Serigne Ousmane dégg fépp foo xam ne rek man am naa fa koo xam ne mu ngi may ñaanloo yàlla muy nit kuma ma suñ borom booleeg am nañ group dégg man suma ñëpp sama nit ñëpp dañoo xamante bokk groupe loolu dafay gën a neexal ñaan parce que loolu nu muy gën a neexalee ñaan tey mooy dégg daaj boo ne sëriñ nga di ñaan yàlla ña nga xam ne ñoom la la suñ borom boole bu leen wax loo xam ne nekkut li ngi leen di wax na nekk nga dox sa diggante ak sa boroom nag te xulil xaq walaw kaana muran dëgg lekk moom moo neex yàlla dégg ñooñ nag dama leen di nuyu di leen gërëm di leen sant am na tamit coow loo xam ne tamit maa ngi ko fi dégg. dégg man tay laa ñëw. raar bi ma raar sa site bii du dara. demoon naa ci ay dëkk yu fasantikoo ñetti réew. tëju ju yoon foofu noonu xalwoot nekk ci ay mbir. yaa ngi dégg. jour yi nag. man dégg équipe bi dafa ma ñor. parce que seen defet sama defet la man sëriñ Ousmane. mu la yóbboon Qatar. nañ dégloo de. billaahi nañ dégloo. ku foog ne foofu noonu xërëm moo fay gañe yaa ngi nax sa bopp dégg daaj. Ah. Serigne bu mënut xaatim nag na ñëw. yàgg nañoo ñëw toog fii sama keppaar gii nii di ñaan lu nañ ñëwaat. ñan Serigne Sall. Serigne si bëri na ñi ngay niitale sa mikoro bi yàgg nañ di njëw ci man di toog fii di ma laaj ay musallas ak murabba ak leneen ak leneen waaye max wii nii nga xam ne mu ngi njëw muy Sénégal du xërëm. ku mën da dagg xaatim. <laughs> dama nga xooli noo def dégg daaj. man sama wax du neex. Ah. naqadiwuma deret dama bañ ku ma yeb. ki nga xam ne moo ñu jiite muy président de la république maître Macky Sall sax man du ma yab. kenn du la du ma fontoo su ma digg bopp bi kenn du ci jaar. sëriñ bu la attaqué dafa rep dafa mel ni. sëriñ bu ma attaqué ma dal sa kaw man nekkuma fi nit ñi di ma attaqué may dem di nekk ci ay di dem di dem ay coowal police comme yu ma doon dégg ba ma fi nekkutee man yooyu nekkuma sëriñ. boo ne sëriñ nga sa moromu sëriñ tooñ la jëflanteel ak moom ci baatin. ci nan ci nan ci naka. da ngay rëq ndigam. ah. dangay ngay rëq ndigam boo ne sëriñ nga looy dem di di dem ci ay kii di def ay xooma brigade de recherche xooma nuñ koy waxee. am na jigéen nag bu may gis. ku ne mu ngi wax ci moom. <laughs> jigéen jooj noonu. waaw nekkul ne jigéen jooj nekkul ne ay cangata koy faj de. jën jigéen la. waaye Marie-Lise xooma man damaa xamul turam. Marie xooma nan la tuddoo Marème Dial waaw Marème Dial kooku noonu. Hmm. hee dégg daaj kooku. bu may xool di wér. li ko dal. wóor na Cheikhou Tidiane Chérif ak koor gi ñu nekk. man nag xerees naa nag or ba ngoon jot may wax lu amut. duma ko defal kenn ak koo mën di doon ñëwal sama kër gi toog fi yëkkati ay millions wala ay milliards jox ma ko duma la wax loo xam ne daf lay bégal wala ma topp sa naf su bakkan di wax lu la neex loolu duma ko def dégg daaj bu may xool di wér. mu xool la ci bët nga xool ko ci bët. bu ma xoolee ci bët ma xool ko ci bët mbir yi jeex dama koy seere laa wax mu jeex foofu amul wax. foofu leneen mënu faa judd nga yaakaar. daaj man bu fekkee loolu la maa ngi ak soxna. man maa ngi soxna jànq bu ndaw jongama. Ah. taay fii xale xale. waaw loolu nit ñi di wax naan jabar xale. moom laa yore. mu xool la ci bët nga xool ko ci bët. ma xoolee xool ko ci bët dama koy seere mu jeex amul soxlu ma fi nekk di wax dama koy seere mu jeex boo amee loo may laaj nga ma ko dégg daaj. sérieusement tey bëgg naa ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy njariñ bëgg naa ñu waxtaan ci xam-xam mais sëñ bi man euh, seet gis naa sëriñ su ko man mais man façon bi ngay seetee moom a jaaxal parce que sëñ Ousmane dégg naa ay tur sax danga nga koy wax tur. ku ne ngi mellax melax yi nag naan alaaji dégg nañ jël. lu ma teg ci taabal bi rek sëriñ jël ko. alaaji dégg gi nag dinaa ko baax. daaj. daaj. daaj buñ ma yëngal. hee daaj. daaj bu ma kenn yëngal bëggumaa yëngu. man dama fi du nekk di jekki jekkal di xuutar xuutari mbir mi di jëli temps man loolu dama ko du def. wàllu woowu nga xam ne moom nga ma laaj muy seet waxoon naa la ko fi nee mu ngi mel ni dégg ak sëñ Medu mi ci caméra bi gaa seetuñ da lépp loo gis nag dafa am nday am baay am doom nu ma la ko fereñ fàccalee woon keroog te gis nga kër boo ciy dugg danga war a jaar ci bunt bi wa aatul buyuta min abwaabiha ñaan yàlla ceesulaayam moo def seet nit ki tey boo ko seetaloon yett yi mënoo koo xam ci moom mënoo xam bidiwam tabiyaam wala rawxaaniyam ñetti ñooñ nday la baay doom mooy buntam ñaan yàlla wa aatul buyuta min abwaabiha seet nag moom seet dégg daaj wóor na al alquran dégg daaj seet duma ci morom yi benn sëriñ ah? danga may oo automatiquement ma wax la lu nekk ci yow tudd sa tur léegi dama koy def. gis naa ay sëriñ ñuy joxe ay sarax de nga woo ma ne ma gis naa sarax bu ma dégg sëriñ wax ko bu ñu ko defee réew mi dana metti lan moo tax tamit euh, yenn sarax yu bon ni ñenn ci sëriñ si di ko digal yenn nit ñi te xooluñ sax fu réew mi toll. baaxut de buñ ko def sarax soos ñu joxe baaxut. te réew mi dama bëgg mu neex saa su ma toogee ne la dégg daaj bëgg naa Sénégal gi neex ay waay daaj ay waay daaj buñ ma yëngal de ah? ay buñ ma yëngalee dinaa yëngu te damay ragale yëngu nag bu ma yëngoo président dina am problème président wa président Macky Sall laa man bu ma yëngalee dina am problème te président damaa bëgg mu nekk ci jàmm buñ ma yëngal bëgguma ko nañ ba sarax yi ñuy jox nit ñi dégg sarax dafa am fu mu baaxee am fu mu bonee te sëriñ si nag ñoom ci bonal ci la ñuy dox baaxuñ te parewuñoo baaxal santuñ te parewuñoo santal gërëmuñ te parewuñoo gërëmal gis nga mbokk yéenee ci biti ku amul looleen leen dimbalee bàyyee leen seen alal yu ñu leen di jox biti sedd na dégg daaj métti na ci biti dégg daaj sedd na métti na sedd na métti na nañ ragal yàlla ci lii ñuy def doomu aadama boo wéetee nanga gore wétali ak gore yaa ngi dégg loolu moom lañ xam man de loolu laa xam te ci laay oo képp koo xam ne mu ngi fi dal bi may dal nag seen kaw nag tax na nag ku nekk mu ngi génn di wax yaa ngi dégg waaye nag képp koo xam ne nag yaa ngi wax ci man lu bon baal naa la boo ñëwee nag di songoo di def ak man ci dara ma rëq sa ndigg rof baatin ci sa jëmm ji ak koo mën di doon koo mën seen biir nag dégg daaj ku wax ne mën na maa fay waxut dëgg taal bu yàlla taal yàlla rek moo ko mën a fay te man damaa yore compteur boo xam ne damay branché ak suñ borom wax ak moom direct man maa koy def may jàkkaarloog suñ borom sàbbal wéet wax moom direct am na na ku am na nag ñu ma ko kalaame woon ah, fay nañ. kan moo fay. duma ma tudd tur. da ngeen wala dafa am lu xewoon. ma ne branché naa sama contour. Mm-hmm. jàkkaarloo yàlla direct kalaame ko li ma koy kalaame mu may ma ko damaa wéetoo moom bàkkuma sama bopp nag ne damaa mën a ñaan lim def ci man mu dindi ko dama am lu ne mën lu ne ñëw toog nag ne xuj xujaaral ku ñëw nag ma jëriñ la ow ma kenn sama bopp dégg daaj waaye sëriñ bu ci jàkkaarloo ak man di wax si man dara dinaa rëq sa ndigg rof baatin sa jëmm ji te nañ yem nañ yem nañ bàyyi sarax yi ñuy defloo nit ñi sarax yooyu newut sarax yu baax tañbat bat direct yi ñuy nekk ak compte tiktok yeeg live yi loolu daf caa mën ñàkk ab sëriñ ab sëriñ ab sëriñ dangaa war a wéetoo ak sa boroom déggoo ak moom loo ko wax mu faj ko nga faj aajo yi seere ko mu jeex dégg buñ ma yëngal bëgguma yëngu te su yëngoo du baax ci ñoom bu nu ma yëngal bu nu ma yëngal dégg la mhm. ay waay waxal ci nit ñi mhm. wala boo ko mënoon man ma wax ak ñoom président bu mënta wax ak ñii toog fii nii dégg da war a dangay ngay ñëw nga tàllal leen sa micro bi ñu wax ba convaincre nit ñi ñu yëkkati seen alal ñu jox leen ko ñu lekk day dakk du ñëpp ñëpp de. du ñëpp koy def waaye ñu ko ciy def ñëpp xam naa leen ñu may kalaamee nag xam naa leen te bu ma paree naa yëkkati sama téléphone oo leen man ñàkkuma fulla ñàkkuma fayda. ñi ma yàlla boole. maa leen di di faj seen aajo yi ñu koy gis. ñàkkuma fulla ñàkkuma fayda te sama digg bopp bi kenn du ci jaar. président sax du ju jaar. jàngoroy këyit nekk na tawat joo xamante ni feebar na ñi nekk bitim réew waaye ñi nekk fii bëgg a tukki tamit këyit bokk na ci li yàq seen àdduna ambassade yi mayetuñ sëñ Ousmane euh, ñu gis ne secret këyit yàlla daf la ko dénk ca ba ngay nekk ca daara ja ñu bëree bëree bëree bëri ci moodu moodu yi dëkkee diggante Kaolack Këwoon euh, Mbirkilaan ak fa nga xamante ni mooy kër mbukki gone yu bëri daanaka bokk nga ñi gën a yokk tax tey ñu dem bitim réew. tey nag secret këyit te ko téye def ci kot ma ñàkk suma ndey ak sama baay billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa lii nga xam ne moom laa lay wax yow dégg nit di ko seetaan dégg lii ni may wax ci kayit mu def ko juróom-ñaari fan amu ko ak koor gi may koor lépp lu ma ko waxati bu mu ko gëm loolu mooy lan subhaanallazi ashra bi abdihi leylan min al masjidil haraami ila al masjidil aqsa ila senegal kot la dama koy jenc ak foofu déggoo li la wax kot la dama koy jenc waaye subhaanallazi ashra bi abdihi layla min al masjidil harami ila Sénégal ila bitim réew ila Angleterre ila fune ba nga ciy dugal moom nga ciy dugal yaa ngi dégg ma wax tegtal bi ngay def nga def ko wóor na alquraani karim billaahi ux suma wa rabbul kaaba amoo ko ah su ma géndaatee sa télé bii neel sëñ bi dafay fen man duma wax luy bégal nit li ma lay wax nii nag fa laa waroon a commencé bëri na ñoo xam ne ñu ngi ma doon oo jotuñ ma ba maa jël kenn dégg daaj mhm. dama nekkoon ci tukki mhm. tukki ma ma nekkoon génnoon naa nekk ci waaye ñoom itim lu tax ma génn ci lañ bokk. lu bees fi de. barke Cheikhou Tidiane ku ñëw ma jëriñ la càngat lii ma indi vite fait la. ci lu muy dox ci xaalis lay dox ci wërsëg. Mhm. képp koo xam ne kale woon nga nga déggante ak man. Mhm. wóor na alquraani karim ma may la alal ci benn fan. ci benn fan. daaj ci benn fan lay maye alal léegi. su ma ne la nag mën naa laa may alal nag war nga koo gëm xool ma sama kaw ba ci suuf namm ma dara. am na sa taalibe yoo xamante ni ah, dañu laa utal ab pàkk muy kër goo xamante ni dañ la ko jox àddiyee ngir jëflante bu rafet bi ngay jëflante ak sa client yi la yàlla boole. dañoo baax rek te mën naa ne tamit dama leen koo wan ji leen ko moo waral ñu defal ma ko. ngërëm naa leen di leen sant nag di leen ñaanal yàlla suukar koor yeek lépp tàndarma koor yeeg yëpp gis nañ ko macha allah maa leen di sant di leen gërëm ñooñ noonu ci groupe yi ma xam ne tuddal naa leen sànq bi ma njëkk a tudd muy bu nekk Amérique ca New York ñoo ñoo def loolu noonu kër googu fii ci Ndakaaru awma seen fay nag waaye faatu faatu yi am nañ problème de dañ maa ji teraanga. waxuma moodu moodu yi de. faatu faatu yi. Mhm. am nañ problème nag dañ ma ji teraanga. képp ku ma ji teraanga nag dinaa la fay ba suy la. dégg daa cool kay dootoo ko dégg. Ah? lépp dama koy faj. wóor na Cheikhu Tidiane coowal kayit kenn dootu ko déggati sëñ bi xam naa bi nga demee bitim réew naar yi sonal nañ la ci problème mu ngóora di néew kàttan. man néew kàttan dégg daaj dama cee yore loo xam ne waxuma la sànq ne la xale bu ndaw laa yore. ah gone la ilaha illallah dégg daaj gis nga kàttan dama cee nekkul moromi kenn man kàttan duma ci débat duma ci commentaire newut sama détail ak yow ku ci bëgg a xam lu la leer nag numéro yaa ngi noon <laughs> kàttan man duma ci wax. loolu yëfi seen kon ñuy wax sunguf nag ah, man loolu duma ci wax <laughs> ah ajo dégg ngeen waxtaanu am solo wi yi Seydina Ousmane waxtaanee muy xam-xam di njariñ numéro téléphone yaa ngi noonu affiché ci suufu écran bi képp koo xamante ni woote nga ci rek ah, di nga ko jot sëñ bi ñu bëree nga dund ñu yàq seen àdduna yàq seen avenir yàq li nga xamante ni sax mooy seen société ñenn ñi di ko jiiñ cat ñenn ñi di ko jiiñ rab ñenn ñi naan njabar la tey jii lan nga jàpp ni moom moo gën a gaaw ci li nga xamante ni moom mooy toj liggéey toj liggéey nag dañ cee yore loo xam ne alquran la daaj alxuraan moom laa xam ak sunguf xam nga daju sump teen bu të mhm. xeer yi xam nga ko bu baax ku njëw ci loolu ak dëji sump yi moom lay boole bind ko ak alquran ràbbante ko moom jox la ko damay toj liggéey bi wóor na alxuraan dootuñ ko jàmmati. te ku bëgg jàmm nag kuy takk sër wala ngay odd wala ngay takk tubéy taxawati ne dina def ci yow lu bon moo duul. mane moo duul waxut dëgg. dëgg daañ ñaan yàlla dafa am. waaye métier mi tey dafa bari business. <laughs> métier mi dafa bari business business la bëri. Mhm. waaye dégg ba <laughs> ñu fay bari nañ de. ay <laughs> ah. daaj. ñu fay ak bëri. namm nañ sa micro bi de dinaa leen dimbalewaat nag yëkkati leen. mais boo suulee nit mën naa suule ko waat. barke Cheikhou Tidiane dinaa leen dimbale waat yëkkati leen te léegi nga déggaat leen sa site bi. waaye nag ku ciy bëgg jàmm boo duggaatee bul ma tudd. sa garde ngay ku ci dugg. ku ci dugg ma rëq sa ndég rof baatin sa jëm. daaj. buñ ma yëngal. wasit ji mënu ko bàyyi. lu tax ma koy ba nit ñi topp la naan la alaaji dégg alaaji dégg loolu maa ko fi indi de. sëñ bi toppandoor léeg lañ mën. gis nga daaj gi nag. bañu ma ci tëj ndi pëlis. <laughs> ah ah, ah dara waa bi ah, tey jii su ma nee laa bayre musicien bi ak bayre mbër bi ak bayre kiy jaay bayre yi dafa wuute nekkul benn am na sëriñ su bëri soo xamante ni xamewuñ ne bayre yi bokkul tey ah, différence bu bayre yi ak ban bayre bayre dégg naa yor nga ci bu doy waar bu garaaw boo xamante ni yaa ngi koy jëfal artistes yi tey jii àdduna bépp di leen dégg. ci sën lañ koy def bayre bi ma yore. xam nga sën. sën waxuma la sën sën mbalit. daaj déggal li ma lay wax. tey nag duma fi nekk di xuloo ak yow mënuma ko. sa yi nga may def ba ko. waaw sën laa la wax sën. ci lañ koy suul 14 jours. yaa ngi dégg. ci lañ ko ci des 14 jours. bu ma ko sulee jox la li ma lay jox ndàmpaay gi nga dem sangoo ko barke alquraani karim boo siiwut. di nga jàng alquran di ko tarit te boole wa ci salaatu fatiha waaye bay ref salaatu yaa ngi noonu. sëñ bi eh, jii émorite ak jabet ak ndoxum siti bokk na li sonal ci ñi nga xamante ni moom mooy nit ñi rawatina mag ñi mais la nga jàpp moo gën a gaaw ci ah, faj yooyu jàngoro. émorite. ndoxu siti jàngoroy kajoor ñoo bokk nday bokk baay mbokk lañ benn lañ mm-hmm. boo ñëwee ci man sëñ usmaan mm-hmm. ak li ma yàlla may bàkkuma sama bopp ne damaa mën a ñaan li def ci man mu dindi ko waaye ku ñëw bu ma ko teretee ñetti fan mu dañ dama koy raxas nga saw ko wàllu woowu nga xam ne mooy jabet boo ñëwee dina am loo xam ne dama la koy jox ci meew nga koy def daaj ku ci hémorroïde wala nga ballonnement wala ndoxu siti wala jàngoro kajoor wala jabeer nga téye ko mhm. mu lay rey yow la neex bëgguma di teg kenn ci fitna bëgguma kenn nekk ci fitna mhm. ñépp jàmm laa bëgg ñu am waaye nag góone googu jigéen googu noonu jaal xooma bëgg naa koo dimbale de dina bu may xool ci bët ma koy xool mbir mi jeex du tunguf du ren du tus bu ma xoolee ma xool ko mbir yi jeex sëñ Ousmane ah, tey ah, bala ngaa tàggatoo bëgg naa nga ñaanal ñi nga xamante ni moom mooy ñi nekk ci prison yi sàkkul leen limbal parce que nit tooñ na dugg kaso waaye nit tamit tooñ na ndogal ci kawam mu dugg kaso waaye nit tamit tooñ nañ ko mu daal di dugg fa nga xamante ni mooy kaso kon secret tijji nit bëggoon naa nga dugg ci laata ngay tàggatoo ak askan wi waaw sekkereb kaso ak tijjindit dañuy jiital li nga xam ne moom mooy tijjindit taal la nga tàkk ni làmp yi ca Touba wala nga tàkk làmp ya nekk Ngor nga tàkk ni làmp ya nekk Touba Mbàkke wala Ngor wala nga ubbeeku ni rëbbi na maye eh sekkere boobu eh, dama la ciy may daaj yow sama waay nga dama la ci may alaaji medum tamit dama ko ci may loolu nga xam ne dafay tijji nit dama leen koy may kot la nag ku ko bëgg boo ñëwee ma seere ko mu jeex ñi ne nag ci kaso gi réew mi metti na tàng na kaso gi xat na ay waay président ay waay Macky bu fekkee jar na sax ñu toroxlu ñun ay jullit lañ ñu toroxlu nañ toroxlu nga baal nit ñi kaso dañ la fay dugal ba pare te defoo ñu jàpp la tée la defoo waxoo yégoo ñu jàpp la tëj la balaa ñoo xam ne def nga ak defoo fekk na yow nungu su dem nga fa oh. waaye loolu tamit nag dafa neex nit ñi daaj. gis nga ndit boo juddoo lay am loo xam ne dañ la koy mooñaalee def ko ci yow. te jigéen ñi. nañuy nàmpal doom yi ñaari at. surtout loolu. wal waalidaatu yurdixna awlaadahunna awlayni kaamilayni la alquran wa ñaari at. nañ koy nàmp ñàkk nàmp ñaari ñaari at gi nag moo waral tey gone goo jub boona kii mu ne la meew wuñ koy nàmpal meew yi koy jox meew yi xale yi meew yi nii ñu leen di jox meew nag yii nii ñuy ratt di leen ko jox moo waral tey gone goo jublu boo ne ko nanga mu ne la hën mel ni ku lay mbëkk loolu kese la nañuy nàmpal nit ñi dafa am solo te góor ñi nañ tee jigéen ñi ndéegu sëy yi jaxasoo na Sénégal gii nag yuuxu dina jug fuñ ko fogeewul ci coow yi di génn nii yuuxu dina jug fuñ ko fogeewul de dinaa ci maye dog nag ku ko mën a def soixante-dix danga ko def wa isa batastum batastum jabbaarin wa isa batastum ku mën loolu na ko def ku ko mënul nag xawma ci yow dara waaye réew mi nag ci kanam dina tàng dégg waxtaan bi tey fii lay yem ay ayco dégg ngeen euh, Serigne Ousmane Niass li ba waxtaanee tey mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la waaye ngëneel la waxtaan wi tey euh, dugg nañ ci point yoo xamante ni képp koo xamante ni teewlu nga ko tey bëgg nga sa xol sedd na. namoon ngeen Serigne bi waaye ni ngeen ko bëggee ni ngeen ko soppee noonu la ko bitim réew bëggee soppeek ko ba mu demee ca naar ya gis ngeen nañ ko doon xëccoowee gis ngeen nañu ko accueillir li ko waral mooy njàmbaar ak xam-xam gi ne ci moom waaye liggéey bi nga xamante ni ca maamam ju baax ja la bàyyi ko tàbbi ci jëmam ji mbokk yi la ca maam sët moo koy dond kii ne mu mel maam jaa ko def ci moom ay ca numéro baa ngi noonu affiché ci suuf ecran bi képp ku ko woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp dañu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara darajey Muhammad Rasulullah